joxantey lenge si bi amoon tey ci bànkaas bi ñu dénk wàllum àllam bi ci diggante abdu Karim sàll ak ki ko wuutu di alindooy Ndoye ca ba muy jël kàddu kii di Abdou Karim Sall jaajëfal na ñi mu doon liggéeyal si diiru ñetti at ak juróomi weer waaye tamit dellusi na ci liggéey ba mu fa jot a def monsieur le président maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm monsieur le ministre ci diir bu gàtt jot nañu teg ay jéegu fii ci ministère de l'environnement et du développement durable jàpp naa ni am na lu bari lu des waaye je pars la tête haute waaye avec un esprit tranquille parce que ki ma wutu jàpp naa ni bu soobee yàlla dina jël ministère bi yóbbu ko feneen fu gën a bu soobee yàlla loolu laa lay ñaanal monsieur le ministre di wax ne ginnaaw bu ma jaajëfalee l'ensemble du personnel du directeur général directeur national ba ci agent bi gëna a suufee ci wàllu organisation ñoom ñëpp sant naa leen gërëm naa leen ñoom ñëpp maa ngi leen di baalu àq di leen jéggal di leen baalu àq ci dëkkandoo di leen baalu ax ci li ma tey di leen baalu ax ci li ma teyul sama mission ñoom ñoo ko gën a yombal ci biir ministère de l'environnement ki ko fa wuutu di alindooy Ndoye moom liggéey la woote boole si dalal xeluñ fa fekk dama ko yemale ci cant googu ak gërëm bi jox assurance samay collaborateurs yi ma yàlla booleel tey ci coobare président la république que maa ngi tàllal samay loxo ubbi samay bunt jox leen sama disponibilité lépp ci li nga xam ne liggéey bi loolu la laaj ci dëgg ak li jubóog li nga xam ne moom mooy intérêt wu réewu Sénégal moom mooy intérêt askanu Sénégal yooyu bu jubee rek ca la ñuy jëf jëf réeréew du ma sa am kon maa ngi leen di en tout cas jox sama loxo fàttali ni liggéey bi seen liggéey la parce que mooy seen métier la preuve ànd ngeen ak sama mbokk mi ñetti yaat tey keneen day ñëw dañ fi ñëwoon fekk leen fi day dem ba parce que mooy seen métier kon li ma wax fee ci pêche yëf yi ci seeni loxo la ne ci seen taxawaay la ne pour que justement li Sénégal di xaar li askan Sénégal di xaar ci département bi ñu mën ko gis ci lu gaaw ci lu gaaw parce que nag am naa yaakaar ci ni suba rek ñu tàmbali du dëgg kon daal monsieur ministre danaa la seet si mbaaw da ne loo yor bu ma ko soxlaa mu ngi am à disposition loolu awma ci xel ñaar kon naa ni ci bureau bi fee sax wax naa la nee naa la ah bul foog yaa ngi noppaliku daa mel ni da nga des rek doo noppaliku parce que yow ak man benn lañ benn avril lañ am benn intérêt benn bëgg-bëgg la ñu am mooy la ñu dénk te ñu jàpp ni bu doxee njëriñ Sénégal la nan la ñu fexe ba loolu ci li mu gën a gaaw loolu nag soxla nañ ci njàpp njàppandal suñu borom soxla nañ ñaan suñu waajur yi may sant yàlla yàlla nañ fi yàlla bàyyi lool lool lool suñu famille bi ñu koy defal waaye sant nañ suñu détermination ak suñu engagement collaborateur. Abdou Karim Sall mbégte la génne si bile ministère ndaxte ñi mu doon liggéeyal dañ bette bettee ay teraanga bokk na ci ñaari kaamin alxuraan ci loole sax jot na ci jàng ab saar.